Bienvenue sur Salam Vision. Wa sallallahu ta'ala ala sayyidina wa mawlana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman ma jóg liggéeyal Sëriñ Tuuba ta sàkku ngërëm ci barke Cheikh Moustapha ci barke Seex Mustafa Mbàkke Sëriñ Baara الله من كل كريم أكرم من آمن خال له تكرم أسلم كلك عن إيماني ولازمين سار للرحمن واجره بالسكر بلا كفاني ترفع إسابه مع النيران واجره بالسكر بلا كفران ترفع إسابه مع النيران jërëjëf Serigne Makhtar Fall ci njàng moom waaye mbokku taalibe yi mbokku jullit yi askanu Sénégal gannaaw bi nga xamante ni amee nañ digal ci ki nga xamante ni mooy xalif général des Mourides Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké yàlla na fi yàgg loolu te wér waaye itam ndigal la daal di jaar ci ki nga xamante ni mooy Serigne Moustapha Mbacké di xalifa Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Mbacké Serigne Lamine Mbacké xalifa Serigne Ahmed Mbacké ak mbooleem njabootu Serigne baara gi ni yëgal bés bi nga xamante ni Serigne Alaaji Mbacké Ahmed mi ngi ko fas yéene fii ci Pikine tali bu mag bés bi nag kañ lay doon ñu ne bés bi ngi doon incha allahu rabbi taala samedi 3 juillet 2021 ñu wax ni bés bi mi ngi tàmbali 10 heures ci suba tam ci problème mooy fas nañ yéene bu 10 heures jotee incha allahu rabi taala ñu tàmbali li nga xamante ni mooy wàccee kaamil yi li nga xamante ni mooy xam ne mooy tisbaar bu juróomi waxtu ci ngoon jotee gannaaw tàkkusaan ci la mbooleem daayira yi nga xamante ni fas yéene def wane seen seen seen seen seen yéene ci bés bi di tàmbali juróom-benn waxtu bu tegalee fanweeri minute ci la Baye Fall ñoom it daal di ubbi li nga xamante wax dëgg yàlla mooy bés bi ci wàllu juróom-ñaari waxtu ci ngoon tegalee fanweeri minute njàngum xasaayit bi ci lay tàmbali te nee nañ bàyyiwuñ ci benn jàngkatu xasaayit boo xamante ne rek euh, yaa ngi bokk ci kër biir kër Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul su ko defee nag bés ba moom lépp loo xamante ni bëgg nañ ko ci am ci lépp loo xamante ni daanaka ak leeral la mën nañoo ko ak ñi nga xamante ni ñoo ŋànk bés ba ci numéro téléphone yi nga xam ñu ngi koy joxe 77 633 61 18 wala 77 958 98 86 wala ba tey ci 77 510 64 64 31 numéro yi képp koo xamante ni woote nga ci incha allahu rabi taala lépp loo xamante ni bëgg nga koo am ci leeral incha allahu rabi des na la ko ci leeral ni ñuy def nag mooy bala ñoo sori mooy dañuy jox ki nga xamante ni mooy jëwriñ Serigne As Diouf moom loo xamante ni tam fas yéene naa jëm ci bés bi. si ndigalu sëñ bi sëñ baa ngi woo président de la république Macky Sall ak soxnaam Marème fay Sall sëñ baa ngi woo ministre conseiller Bamba Kane di taalibe Serigne Bara sëñ baa ngi woo maître Madické Niang di taalibe Serigne tubaab sëñ baa ngi woo sëñ Mor Fall PDG taalibe Sëñ Bara sëñ baa ngi woo maire Amadou Diarra Pikine Nord te doon maire bu Pikine Nord gox bi buy sëñ bi defee euh, cant gi sëñ baa ngi woo sëñ Basiirou Mbacke Xaadim Aw Ba nga xam ne moom la tuddee bés bi doon rakk sëñ bi te mu bokk ak moom sëñ Baara sëñ baa ngi woo sëñ Abdoulaye Djigo opérateur économie sëñ baa ngi woo sëñ Abdourahmane Dieye directeur général de douane sëñ baa ngi woo Cheikh Malick Sène mu sëriñ Cheikh mu Mbacke moom Cheikh Mouhamadou Fadal sëñ baa ngi woo sëñ Victor Mamito tali bu mag sëñ baa ngi woo soxna Adja Khoudia Guèye Lo Guèye sëñ baa ngi woo madame le maire Ñaane Ndiaye sëñ baa ngi woo soxna Olumata Guèye pharmacie sëñ Saalu Tali Diallo sëñ baa ngi woo monsieur Lamine Sarr colonel de douane sëñ baa ngi woo sëñ monsieur Ousmane Sègne commandant de douane sëñ baa ngi woo monsieur Mourid Niang transitaire Serigne Touba sëñ baa ngi woo monsieur Mokhtar Samb transitaire sëñ Baara sëñ baa ngi woo maître mbay Dieng avocat à la cour sëñ baa ngi woo fenn ñëpp la sëñ bi woo si bës bi doon le 3 juillet 2021 fii si Pikine rue 10 jàkkaarloo jumaay rue bi sëñ bi mu ngi woo ñëpp di woo taalibe yi ak rawatina waa kër sëñ Baara yi rawatina waa kër sëñ Tuwaay sëñ baa ngi woo waajuram di Serigne Cheikh Mbacke moom Cheikh Mouhamadou Fadal Mbacke doon waajuram doon xaritam doon léppam sëñ baa ngi woo ñëpp njabootu sëñ Cheikh ma njabootu maam Cheikh Mahi Fall njabootu Cheikh Mouhamadou Lamine Bara sëñ bi bàyyiwul genn di leen yëgal ne bis mooy le 3 juillet fii ci Pikine bi bis ñu ci amal euh, sant sëñ mu sëñ Ahmed Mbacke mu sëñ euh, Alaaji mu war a def na bis bi le 3 juillet ñu ngi leen ko yëgal jigéen ñëpp bàyyiwuñu kenn kenn ku ci ne sa tur ak sa sant di leen bëgg na yéen ñëpp ngeen teew ci ci kàttanu yàlla di ko yëgal euh, Pikine Nord yi yëpp di ko yëgal àdduna yëpp mais di ko yëgal Femme Action ak Jara di ko yëgal Fama jàppal ma jàpp di ko yëgal euh, madame le maire Niaye Ndiaye di ko wax euh, adjoint du maire Niaye di ko yëgal ñëpp leen wax na yéen waa Pikine noonu bis bi seen bis la bu kenn xaar ku la woo woote baa ngi nii nañ ñëpp ku ko dégg na nga xam ne sa tur bi nii tudd nañ leen ñëpp amul kuñ ci xaar bi ak seen ñëpp teew ci kàttu yàlla ak mbaax di yëgal euh, njabootu sëñ Amet Mbàkke bi jigéen ñëpp bàyyiwuñu kenn ñu ngi commencé ci soxna Anta teg ci soxna Adja Adji Mbacke di ci teg ñëpp daal di leen eh, wax ne leen bis seen bis la bisu sëñ Alaaji Mbacke nee na mi ngi bëgg yéen ñi ay njabootam yéen ñëpp ngeen jiitu ndax bis bi seen bis la mi ngi noonu daal ñu ngi nuyu yéen ñëpp jaar nañ ñëpp am nañ ci yàlla bi yóbbu ak bakkal ñu fekk ko tattal ko commencé ko bisimilahi rahmaani rahim eggale alhamdulilah rahmaani rahim maa leen di sant di di leen jox seen wàccuwaay te am kontaan lool te xeebu lool nag ci wax ji may wax naa ndigal daa jib rek faaw ñu jëfe ko ah soññee rek di mboo di wax ci ndigalu Ngalañ Mbàkke moom mu ci ndigalul suñu jëwriñ Moustapha Ba ci maa moom amoon na fi taxaw lool mais nag daa nekk ay xeetat moo tax teewu waaye man ma teew rek day mel ni bi mboolem secours bi mboolem apprenti bi ñëpp woo bi la aw sas la ci ñu ne lu mat dandu leen ñu def suñu alal def suñu doole def suñu xam-xam di def ci lu mu def ci nag ñu leen di koy yee depuis le 3 la samedi le 3 fii ci Pikine ci en face jumaa ji ñu leen di ñaan yéen ñëpp ngeen teew ci ñu jàpp ci bis bi ba mucc ayib parce que li ñu koy defal kat doom ci ci sëñ Tuubaa ci biir Pikine bii ah yaa dëgg yàlla bu ñu ko defee lii lii. ñun wax dëgg yàlla ah, am na lu rëy daal ndax lu doon ni si rajo Mbàkke ci jigéen ji nii ñu dëkk ak moom mu doon murit saa def doon suñu sëriñ doon suñu sëriñ Tuubaa fii bis da ngeen jàpp loxo bi comme nag bii première édition bi daf ñoo xaw a xot nii mais deuxième édition bi bu soobee yàlla ak yonent bi bis bu ñu sabee bu dimanche nañ commencé dajale na ñu fi yàlla bàyyi ñun ñëpp nag yàlla jox ñu alal ju bëree bëri bëri boo xam ne bis bi ñëwee rek ñu mën a nekk rek ko ci masalaam waaye maa mënuy wax nag maa ngi jégalu lu ci lu ci dëng rek moo xam ne sama jëmm ji xeewu ji la lu ci jubit moo xam ne suñu alañ mbàkk mi toog ñu ngi leen di nuyu salaamaaleykum wa rahmatulah. sëñ baa ngi woo sëñ Samba Gadiaga di woo sëñ Jibi Guèye PDG directeur général di woo Ahmed Guissé taalibe sëñ Sall di woo Massamba Thiam fii si Pikine. sëñ baa ngi woo si ndigalu si ndigalu sëñ sëñ Moustapha moom Cheikh moo xam moom moom sëñ Sidi Mokhtar moom Alaaji Baara si ndigalu sëñ lamin moom sëñ Ahmed ak si kilifteef sëñ Basir Mbacke moom sëñ Ahmed moo jox ndigal sëñ bi mu def bés bi ndax bu woon sëñ bi bu mu def bés bi sëñ bi du def bés bi kon si ndigalu sëñ Bas moom sëñ Ahmed sëñ bi mu ngi koy woo si bés bi di woo njabootu sëñ am meen bi yëpp bàyyiwul kenn bàyyiwul fenn bés bi daal naka sëñ ndongo waxee sëñ bi dafa doon suñu sëriñ Tuubaa fii si koñ bi yàlla baaxee ñu dimbale ñu mu ñëw dëkkal ko si koñ bi mu am ak ñëpp jàmm ñëpp bëgg ko waa koñ mobiliser ko ànd ak soxnaam ne da nga koy def defar ak bés kon bés baa ngi noonu le 3 juillet la 2021 ku ñëw sëñ Bara faj sa aajo ku ñëw Cheikh señ Ahmed Mbacke faj sa aajo kon bés baa ngi ni wasalaamaaleykum wa rahmatullah. jërëjëf Serigne As Diouf ci kàddu yoo xam solo yooyu nga xamante ni wax dëgg yàlla jotali nga ko su ko defee rek sëñ bi tam mi ngi soññaat mbooleem mbokku taalibe yi nga xamante ni ñu ngi ci biir réew mi waaye ñetti bitim réew waaye itam mbooleem daayira yi nga xamante ni ñooy daayira yi nga xam ne ñoo aju ci Sëriñ Ahmed sëriñ bi nee na bàyyiwul kenn rawatina nag ñi ci biir réew mi ak ñi ci bitim réew waaye plus particulièrement waa Touba daayira ak daayira Wakam ak daayira Pikine nga xamante ne tey jii fii la yëf yi sas yi ne xewe sëñ bi nee na ñoom bu leen kenn jiitu ci bés bi te bu leen ci kenn man ñu ngi leen di woo ñoom ñëpp bàyyiwuñ ñu kenn li ñuy def nag mooy dañuy jox Serigne Cheikhouna su ko defee moom mu daal di yëkkati kàddu yi nga xamante ni moom la Serigne bi waroon na yëkkati su ko defee bu noppee dañu daal di ñaan daal di waajal bés bi incha allah rek kon Serigne Cheikhouna kàddu gaa محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di leen ziar di leen baal wax di leen baal wax ñaan suñu borom boo leen jéggal di leen woo ci bisu suñu wóllare bi suñu sëriñ sëriñ Alxaaji Mbàkke moom sëriñ Mouhamed Mbàkke Serigne Bara moom Serigne Touba bis bi war a tombé samedi le 3 juillet 2021 ci Pikine bu baax a baax a baax ndax sëñ bi bis bi dañ koy yéex a taxawal sama xalaat man bis bi lu waroon am bu yàgg yàgg initiative bi ku ko jël def na lu war a am ñu ci soññi mbokk yépp di ñaan suñu borom ci jàmm te nangu ñu lépp luñ ci jaamu ak luñ ci ñaan day ñuy def ko at yu baree baree baree bare te at mu ñëw gën at mu wéy ci soññ suñu bopp di ci soññ mbooleem ku yaakaar sëñ Tuubaa ndax lu baax ku ko taxawal woo la ci rek bëgg na laa dimbali te sëriñ bi day koo xam ne tànqam luwul kenn bëgg ñëpp yéene ñëpp jàmm yéene ñëpp yiw moo tax mu taxawal bis bi waaye mënoon na ko fekk kon ngi wax rek ci ci kàddoom waaw kàddu yi sax mën naa ñàkk waaye day ndigal ndigal moom bu jëlee rek defal boo mënee defal boo mën kon nag ñu leen di fàttaliwaat bis bi samedi 3 juillet fii ci Pikine di ci woo mboolem ku bëgg lu baax xam ni ku ci ñëw rek yàlla dina faj sa aajo incha allah ñu koy ñaanal ñëpp